saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa président Aline Sarr père Bekaay Mbaye ak taxawal diggante Boy Niang 2 ak Balla Gaye 2 bu nu jàllee ci président Aline Sarr ci ay kàddoom ya mu doon yëkkati ca maison làmb xëy na am lu mu ci fësal ba ñu ko laajee ci drapeau chef de l'état ak lan moo tax organiser wuñu ko ci Dakar la mu xamle mooy am nañ arène am nañ fu ñu ko organiser waaye organiser tournoi bi ni mel du événement fii ci Dakar arène nationale bu saison bi tijjee ba ba muy tëj lu dul combat ji dana fi am Dakar gépp sax laay wax bu saison bi tijjee ba ba muy tëj samedi ak dimanche yépp làmb la boo ci bëggee dolli organiser fi drapeau loolu mook zéro moo li ñuy bëgg mooy créer événement créer spectacle te loolu fi nga ko mën a mooy ci région yi dëkki làmb yi nga xam ne rarement la fa làmb di am yóbbu fa drapeau chef moo gën foofu loolee moo waral drapeau chef bii di ñëw ñu nàmm suñuy tànk wutali Saalum bi lee ren Kaolack la ko fas yéene defee ba mu waxee ci arène nationale moom président Alioune Sarr la mu xamle mooy bu déggee ñenn ñiy wax naan arène nationale Senghor projet boobee jamonoy maître Abdoulaye Wade la woon kii di maire de Dakar Pape Diop moom it amoon na projet bi ni mel arène la bëggoon def foofee ca stade Iba Mar projet bi ay sénégalais ko defoon ay sénégalais ko seqoon bi président Macky Sall ñëwee la jël projet bi confié ko ay chinois teewul délégation ministre des sports moo ànd ak architecte conseiller sénégalais dem ba ca Sine saytu ja mbir ma arène bi ñoo toog waxtaan ci péncoo ci kon man

lu ko sax mën naa def coproduction ak beneen promoteur ñu tëgg ko promoteur ba bëgg tëgg Balla Gaye 2 Boy Niang 2 moom xëy na wax ci bile combat sama fukki xel xalaatut bile combat ma def ci 150 millions may agent Balla Gaye wax na ak moom waaye waxuma tooy na waxuma wow na moom Aziz Alen Ndiaye léttuma firiwuma waaye bu sama journée le 8 bi jàllee danaa continuer négociation ba xam lan laay am la tension est montée d'un diggante Cité ak Papa waaw bu nar tàng la gis ni Siteu ak Papa nañu doore keroog ca Maris Ndiaye loolu moo lay firndeel ne combat bi dana tàng dana neex Papa moo fekk Siteu fa mu nekkoon di ko provoqué Siteu ba mu jógee dafa xolu daal koy bimax bimax yu metti keroog Siteu dafa mujjee énervé loolee la Malick Thiandoum xamle moo tax bi le ku yëbu xam ne cin luy bax la du am ruq buy sedd leneen la nar bax ci arène nationale mooy diggante ñagas ca lutte sans frappe ñu génn waaye foofee pakala bu mbuur moo woon boppam jaaga fa yóbbu ndam la jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ëllëg incha allah